jërë ngeen jëf yéen sunu mbokk anat bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci dellowaat rek kenn ku nekk swàccuwaay mamaat lii di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral di saa su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dama laa dal ci biir sit bi rek saa su nekk damay bëgg ñu yaatal bu baax ci xam-xam sëriñ Moustapha Amar nag nee naa leen doonat ku ñuy présenté te xam nañ ko bu baax ci milieu bi nga xam ne mu ci yëngatu mu di ñaan ak paj dinañ waxtaan ci xam waaye duñ fa jigee dinañ waxtaan ci actualité lépp loo xam ne doon na xew-xew jamono ci réew mi rek dinañ ko waxtaanee ndax suñu borom am na loo xam ne da ko koy dénk mu koy gis. Euh, nam naa seetal ndax am na lu mu gis ci ñoom mu di Zeyna Ndour ak kii di borom këram di Adama Bey dinañ ci waxtaan. Alioune Sall dina ci waxtaan mu di rakku ancien président Macky Sall. duñ fa jógee dina waxtaan ci combat bi dox ci tafaatin ak kii di bal Gaye 2 su ngeen bëggee xam làmb jooju lan moo fay soqeekoo donte li ci des fan yu néew la cheikh bi damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan bi bisimilah. waaw bisimilahi rahmaani rahim cheikh ginnaaw bi ma tàmbalee samay kàddu su turu suñ borom di wax onze billah mina seytaan rajim di wax bisimillah onze billah inna wali yàlla Cheikh nuyu nañ la sëñ Cheikh. tarkal la acca kon mu ngoog nuyu yi am na solo Serigne Moustapha Amar acca xam naa nag saa su nekk dinañ xel di siif di waxtaan donte ñi lay soxla dee bëri euh, gars di comprendre rek woote yu metti la mën a jot ndax liggéey bi mooy tax euh, saa su nekk doo mën di wuy yenn appel ci téléphone bi waaye saa bu paree rek dina jëflanteeg yéen. dañuy faral di message rek maa ah, la mu ngoog acca seetu chiffre bi gaa waxtaanee donte sa seet dafa bëri seetu chiffre bi. seetu chiffre bi euh, Cheikh xam nga man ramlu. waaw ak ramlu si chiffre laa koy xoolee. Hmm, mu ngoog ndax euh, chiffre. mooy doxal jamono soo xoolee chiffre neuf day chiffre bu kamaal mooy chiffre bu mat. <laughs> neuf lu wër tey soo xoolee ba si si nasaraan. waaw table multiplication neuf. loo ko multiplier rek. neuf lay ñëwaat lu wër nga wax boo jëlee neuf fois un. neuf la neuf fois deux dix huit dix huit mooy huit plus un. walaay ndeysaan mu ñëwaat neuf. boo jëlee neuf fois trois. mu nekk ñaata 27. 27 mm-hmm. mooy 2 plus 7. waaw ah, muy 9. lay de saa mm-hmm. ah. mu nekk 99. xam mm-hmm. ba 9 fois 9 mu nekk ñaata. 4 4 81. mu nekk. waaw ah. 9 plus 1. walaay muy 9 daal day loo xam lu mat la. léegi nag bu dee seetu ramlu bi. comme ramlu 16 doom la. doom bu nekk da jël. Euh, seize kër. kon seize chiffres ngay soxla. Mhm. dama lay tànnloo si diggante un. ba seize loolu moom ñu may seetal. Mhm. bettatu si kenn lépp xam nañ ko. macha nga xam ne lépp luñ la si wax. Mhm. du doon luy nit mën a dindi. wala ndeysaan loolu de dafa leer moom. macha allah sëñ Cheikh ngeen baal ma ci kii bi. waaw nga xam lépp luñ la wax rek. du doon luy nit du mën a dindi. wala ndeysaan nga ne lu yéemee yéemee yéeme la. waaw seet moom seex. soo xoolee barki dem seet ma doon seetal fii kooku. si télé bi nu mu ah Pape Cheikh Diallo waaw mu ngi noonu wala naan la mi ngi si yoon. leer na de sax <laughs> gars yi lenn loo xam ni. waaw mi ngi woon ci ay seet bi commencement bi danger la moo tax boo mënul seet. Mhm. mën ngaa juum. lu wër nga wax kon. man moo tax vaar moom góoma ni. donc <laughs> <laughs> dinaa si gaaw a dem ndax ndax li may li ma si xoolee. Mhm. tey Pape Cheikh mooy c'est première fois may seetal nit di ko wàccewaat duggaat ci biir ramlu bi génnewaat ndax damaa gis danger danger yooyu mënul continuer loolu mhm. koo gisal subhanallah mooy ah. kuy génn àdduna mhm. mais loolu da ngay wàccewaat xool ba xam ah. luy confirmer la mais soo ah. xoolee mu taxawee góor waa këf mooy kon ndam dina ñibbisiwaat mhm. dina liggéeyaat dina nekkas jàmm ma dafa yi am na ku ma woo sax ne ma ah ki nga doon seetal de ñëwaat na mi ngi ci nàngam man loolu bett ma mbiru baatin boo koy wax. luy ñëw mhm. ay nit ñi li ñuy yow li ngay gis yow ak nit ñi li ñuy gis. man dama siy mën a teg sama loxo. li tubaab yi naan je donne ma main à couper xaw ma <laughs> man mën naa te teg sama loxo ne mhm. lii may wax. mooy luy am. lu wér nga wax surtout ramlu bi. Mhm. ramlu bi day ramlu boo xam dafa yéeme. bii sax bu set bi la. mais am na ramlu bu ñuul bi. waaw bu ñuul bi nga xam ne am na suñuy yenn mbokk bëgguma tudd ay kii di tooñ. nga xam ne suufu wel la ñuy wut jël bëy rendi ko si. waaw jël guro gu xonq ak guro gu weex dëbb ko mhm. boole kook moom tuur si ay sàngara jël suuf si mélange ko takk ko ay fan ba lépp kii nga xam ne jinne yi kii zulmaan yi ñëpp ay ñëw dugg si biir suuf si nga xam lépp loo wax rek du deñ loolu da ngay dem ba mel ni yow <laughs> si yàlla di kii sax yow da da da da da nga koy fekke waaw fekk ak njabar la ramlu boobu nag mhm. ak bii nii bokkul boobu mooy danger bi te boobu sax dafa aram waaw su ma ko mënee boobu moom lu aram la mais itam lépp lu mu la wax rek du deñ macha bii nag mooy lu boo xam bu set bi daal ndax lépp loo gis dafa am nuuraanu yu waaw am zulmaani yu lu wër bii nag moom bu nuuraanu yu bi la bii <laughs> mhm. day génnee si ko ko xam dëgg rawaan bi wuy si la mhm. si ku mel ni man nga am si biir day wax si biti day wax. waaw si kaw day wax si suuf day wax te da koy mën a wàccee it ba waatal ko waat bi mooy ñeent yoon nga comme ni ma koy rëddee nii. waaw loolu du seet bi de. def na ñeenti yoon lool tey si doon seet bi 100 pour cent la. waaw 10 pour cent moo gën. soo wàccee 30 pour cent nga wàccee waat 50 pour cent ah. nga wàccee waat 100 pour cent mu giñ waat nag. Mm-hmm. giñ waat xam naa danaa ko mos a def benn bis. mais dama koy bañ def sëriñ ci jël ko. te duñ xam nan lañ koy defe di si jël di ci wax yoo xam ne ay musiba la ndax mm-hmm. giñ waat bi soo koy jël su boobaa contraire bi ngay jël dootoo jël euh, kii bi contraire bi nga koy seetee te loolu soo ko xamul soo ko wàccee mën na laa jaaxal nga siy nekk di wax loo xam ni mm-hmm. wax lu dul dëgg moo tax ma ramlu yi bugguma sawar daal comme ni ma koy def nii nga xam première fois bi rek man loolu day doy si man mm-hmm. ndax xam naa dinaa si anticiper wax si loo xam ku xam ramlu mais gis ni kii li muy wax man la ramlu bi heure ma si wax 10 pour cent yi. Mhm. laay génne. loolu moom nay leer ak mbooleem kilifa it ma siy seetal. tarkalla 10 euh, pour cent donc laa si wax. ndax sa mbiru biir du ma ko wax. Mhm. luy xaawi sa sutura du ma ko wax. lu lay lorit loo xam sa noon mën na mhm. faa jógee. yàq la si du ma ko wax. lépp lu ma si wax mooy loo xam lu mënta ñàkk lu mën a génn ci penc mi. mais lu mënta génn ci penc mi moom du ma ko wax. loolu moom mbooleem ku may seetal tamit yaakaar naa ni. njariñ nga si gis ndax soo paree dañuy jokkoo nga mhm. laaj ma si ban sarax la ñuy def ma ne la nangam ak nangam lañuy def ma laabire la ko mhm. dimbali la ngir yàlla seetal ma ko pour ut si ay buzz wala dara exemple bu ñuy joxe la rek mhm. ku yàlla dogal nga am sensit ma seet ko si yow noonu lay demee xamal ni nga gëm ko noonu la demee nga ñàkk koo gëm noon la demee su ma la nee lii moo lay arrivé kenn mun si dara gis nga sëñ seex waaw nga seet lu bari ki dem waaw am benn femme boo xam ne dama koo seetal ne ko sa sëy bi dee mi ngi tas de. waaw te tas na sax laa ko wax. waaw mu ne ma déedéet xam naa ni da maa gisul xa wala da nga maa jaawale daal ndax lool laa ko tëjee ma ne ko sa sëy bi moom daanaka tas na. ma dara si ku ndax tey rek sëñ bi jox na ma nangam nangam pour ma defal ko nangam ak ne man kay maa ngi sant. waaw dama yow de xam naa kon da maa gisul nañ bàyyi ba beneen. waaw moo ma téléphone. ndax sa woote yi bari ne jëkkëram daa xëy ne ko na jël bagage am dem. allah akbar waaw mu ne ma nag ma doon wax. daf maa woo rek di jooy man xaw ma kan la. waaw mu ne ma lan ma doon wax ma ne ko kan ndax kuy wax ak ay junni nit moom daanaka. kenn ku da nga naan ko lan ngay wax. waaw mu ne ma sama jëkkër de nee na may na ma baatam nangam ak nangam expliqué. ma ne ko ah yow kat barki dem ba mu la ko waxee da ngaa fel sama gémmiñ ne ma loolu amul. <laughs> ndax sant na ma sax ma defal ko nangam. waaw xam nga lii nii nag day mbiru baatin boo xam luy ñëw. mu gis ndax seet. Mhm. seet bi dafa am lu ñuy wax daamar. waaw daamar mooy ñeenteelu bunt bi. Mhm. daamar nag lépp lu ci wéeru. waaw lu dëgër lay doon. lu wér nga wax lu giñ waat la ni day am. waaw su si xaalis weeroo kooku dana bari xaalis ala kulli àll. soo ci seetal nit ba xaalis wéeru si muy ab yàll nga naan ko mm-hmm. Idriss si beneen seet. kooku day giñ wat ni kii day am xaalis. waaw su si chiffre mooy yàqu-yàqu. Mm-hmm. mooy numéro 9 bi wéeroo. waaw danaan kii moom ala kulli àll dina am ay jafe-jafe mën naa àgg sax si wàllum yoon. ñu jàpp ko tëj ko. su ci tarik Euh, wéeroo gorogu dëgër la mais su fekkee dafa dugalante si kaw ay chiffres waaw dugalante amar dugalante waat chiffres ndax ci biir nii day wax nii day wax nii day wax xamal ni kii moom sëyam bi ay fan ay secondes des daanaka tas na ah, loolu nag ku xamul ramlu mhm. mënoo koo xam su fekkee kuy liir ay doom la rek naan doom bi ndox la ak doom bi safara la mënoo koo xam faaw ngay dugalante ndax man tomb bu ne si mhm. kaw frada yi nga xam ne benn benn yi benn benn yi dama si xam lan lay wax ñaar ñaari suuf dama ciy xam bunt yëpp ci tijjeekoo soo gisee lu tax ñu naan waaw day gis bay gis ku dee. wala ndeysaan soo xoolee buntu asamaan ndax dafa am ay buntu asamaan. bu ñu ci taxawee danaa la ko wax. Mhm. buntu asamaan yi soo gisee lépp tijjeeku. Mhm. xamal ni kooku moom na fay ay borom. macha allah. surtout si ci buntu asamaan yëpp tijjee ko mhm. mu taxawee juróom-ñaari point taxawaat juróom-ñeenti point ba pare ñaari fégal koj ko mooy numéro 2 bu yeboo fekkoon yor na ko fay na ko ndax am na benn bis ku nekk Espagne xaw ma mi ngi may déggam déet yàlla ko mhm. yàlla bàyyi mu gudd moom loolu mës naa taxaw si loolu mais après ba ma ko waxee rek ne ko yaa ci danger te ba jour ba ñuy wax moom da doon dawal otoom ma koy seetal muy ah. demaale ba ma ne ko yaa ngi danger gëmu mais après si ginnaaw gi la déggaat naa si dal mbir yi xaw a doy waar sax si ay mbiram te ba ma ko waxee moom jàpp na ni ay caaxaan lay wax ndax moom tout va bien parce que yoroon na xaalis waaw ngi doon mi ngi ci jàmm nee na mm. da doon dañ kumpa seet rek di seetlu ma wax ko ay danger mu yaakaar ne dama koy nax rek pour jël xaalisam comme ni njabarkat yi ak trian yi di def daal <laughs> mais li ma ko wax ci ginnaaw moom jotaatuma ko mais daf maa am keneen ku ma boole loon kooku nee na ma diw de yëngalu ko dal ci nangam ci yoo xam dara gënus sax yàlla na ko yàlla defal jàmm moo lay wan ni seet bi dooy caaxaan mboolem lu ma seet fii nii <laughs> barke alquranu karim a doon ma jël la ba seet la mm-hmm. yow da nga mm-hmm. kilifa yi mag a mag a mag a mag laa la wax bu ñu wootal nit nañ yónni diw ne diw mooñ yebal ne ci turam léegi lan lay def loolu moom suñ borom defal nañ sutura uh-huh. ba wàllum seet moom daanaka seex kii gaa yi ci internet bi fii mm-hmm. waxuma ñeneen ñu feeñut de. Mhm. mais gars yi génn ci internet bi. fii mhm. barki alxuraanu karim tolluñ ma fii si wàllum seet. muy seetu si nga xam ni 1 ba 9. dama koy wàcce muy mhm. kam sak bi nga xam seetu raw xaan loolu moom kenn yoru ko fi loolu moom kenn xamuñu ko sax ndax loolu mooy jàpp rab bi yaxlamul xaw la fi samaay wal ardi nga xam ne mooy cent mille deux mille mille mille trois cent vingt. waaw soo ko multiplier par trois mu jox la trois mille neuf cent soixante. di mm. soixante allahu. mooy kam kam sak sasun. moom la kii loolu am na benn yoon booy wird sax boo xam ku ma ko joxoon yow mii bu ma ko joxoon. nga yor rawxaan bi fi ne. di ko laaj di ko doxal di ko kii. bari na daal Cheikh wàllum seet moom wax dëgg yàlla. waaw loolu moom suñuy at taxul ko bari mais. Mm-hmm. duñ ci gone kenn la wala ndeysaan wax dëgg yàlla jërëjëf waay te tamit koo seetal. Mm-hmm. barke alxuraanu karim lu tax ma naqaree jot. Mm-hmm. say téléphone amul benn instant laa la wax. waaw nii su gis nga ko. amul benn instant ndax koo seetal jarul sax ay vidéo ak yooyu. dafa leer a ma jox sa numéro la. Mhm. diw nga seetaloon moo ma ko jox. loolu damaa nekk ay xat-xat waaw nangam ak nangam. Mhm. diw moo ma jox sa na mën nga nangam. wala soo paree soo ko seetalee pare ah gis nga ma. Mhm. la ñuy def. waaw kese macha allah loolu rek nga si gis. jërëjëf loolu nag ñu siy sant yàlla bu baax ndax. li tax mu teggi ñëpp jox ñu ko. waaw dañ siy sant ndamuñ si. waaw ndax dañuy wax ne wa man yatawakkal alallaahi fa huwa hasbuhu waaw waaw xam nga suñ borom moom mhm. mooy xool fu ko neex rek mu def la ko neex waaw faxaalu li maa yurid kon nag seex wàllum seet moom foofu ah. lañ ciy taxawandi ànd taan mu seet moom ma xaw naa gudd nag mhm. seet moom daanaka liñ ci jaaxal moom wax dëgg yàlla seex walaay ndeysaan amu si dafa leer dugg kaso mhm. am na ku ma waxaloon fii ba ne ko sawaay ba moytul di nga dugg kaso ndeysaan juróom benn ñetti fan lañ ci teg waaw mu ne six mois lañ ko teg daa woon ndax da doon lijjanti ay papier mhm. am nga tamit nit tey ba si sëriñ ciy ñaan am na nit ñoo xam ne loolu faaw nga mën koo mhm, ràññetle mhm. am na nit ñoo xam tey boo duggoon seeni i mbir waaw yow di nga am problème yoo xam dootoo ko tal wér te loolu nag ràññet man am na nit day ñëw ci man ma ne la mënu ma laa ñaanal waaw mën naa laa seetal mais soo ma ne ñaan dama naan ah lii de wax dëgg yàlla mënu ma si dara xooli keneen waaw xoolal keneen mais su dee ku ñëw nga bëgg koo dimbali ah. yàggee ni nga dugg si loo xam ni <laughs> surtout nag wàllum seytaane waaw loolu moom lu danger la. walaay ndeysaan. wàllum nitu guddi yeeg yooyu. waaw nga loolu du ñëpp si war a dugg. walaay mhm, ndeysaan loolu moom ku kiiwul rek. war nga ciy tey bu baax a baax. baax ndeysaan tarkal ndax dafa laaj ay sarax yoo siy def. Mhm. ba pare mu laaj nga am foo àgg si kurus tamit. pour mën koo liggéey ndax wàllum nitu guddi dafa doy war. Mhm. dafa doy waar de. walaay ndeysaan loolu nekkul ku ku ku jug mën see mën si dara de. la wàllum nitu guddi. moom loolu lu kéemaane la. walaay ndeysaan moo tax euh, maa ngi dànkaaf sëriñ si bu baax ku si xamul. bàyyil waaw lu wér yorut yenn bagage yi. Mhm. bàyyil waaw. ku yorut yenn tur yàlla yi mhm. bu si dugg lekk lu nit dig nit ni dinaa la defal dara te defoo ko mhm. jaru ko ndax yàgg yàgg di nga faatu loolu moom naa ko loolu wër la waaw loolu nit ñi clients yi tamit wala ñiy ñaanlu si li ñuy mhm. dig leen teg sëriñ yi waaw nañ na solo ndax sëriñ ci nee nañ ma da ngay faral di daw si dal si kaw sëriñ ci bàyyi clients yi clients yi tamit dañ lay dig duñ doot la may jàmm mais bu ah. soxla am sottee rek dootoo ko dégg loolu tamit nit ñi nañ ko bàyyi tey am kóllëre kon mu ngoog waaw acca néew kàttan di nga ci ñëw ñu njëkkanteeg waxtu wi ndax waaw euh, néew yaa ngi ci def lu mhm. loolu moom mhm. ñun alxuraan xam nga lañ am waaw man moom lépp lu ma ne mën naa koo faj rek du génn alxuraan waaw aw ma sunguf bu may joxe mhm. xam naa sungufi nag waaw lay ndeysaan lu wér sunguf yi moom xam naa ko moom dafa leer bu ne ma joxe si ay mbir mais man moom li ma doy mooy alxuraan <laughs> te wàllum wàllum faj alxuraan daal moo ma doy walaay tey alxuraan tey fi ne su dee wàllum kàttan axamun saxakun xalaxun yasun mhm. mooy ismu jalal nga xam ne tey da ngay bind a xa mun sa xa kun xa la xun <coughs> ya sun mhm. moom ngay bind bu ne am na aay bu muy àndal waaw nga xam ni boo bindee loolu aay ba mu mat onze fois nga koy bind onze kilos de zéro xorom polle lay àndal si mhm. bis bi ngay wér bu la fekkoon juróom-ñaari dafa leer barki alxuraanu karim doxatoo ci bis bi mm-hmm. ngay wér ismu jalal la tàng jër la def macha allah ku gis li muy àndal sax suñ borom may la tuuti basira rek wala may la tuuti nga xam tuuti mm-hmm. dégg luxa ci arab rek li nga xam ne lii moom mën na sax faj mën naa fànq lu dul dee mënu koo fànq lu dul dee rek dee doo la mënta faj mais lu dul dee rek mën na koo faj bàyyiwul dara mm-hmm. loolu moom tubaarkàlla sëñ Cheikh waaw léegi nag soo xoolee beneen bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ndax moom laa yàgg di joxe mm-hmm. suratul yaasin nga xam si diggante aay ci mubin yi waaw mubin yëpp da nga koy tijji mm-hmm. mubin boo egsi nga bind fardu jabaaru sakooru sawaabu zaxiru xabiru zakiyu nga xam moo nekk ci xaatim suleymaan mm-hmm. nga moo jàpp juróom-ñaari tur yàlla yooyu noonu nga fardu ba zakiyu la ngay jël nga xam dernier mubinu euh, yaasin bi ngay dugal zakiyu dugal faja sa sun zaxaja muy talsam bi ba ba kasaalika zuy li kaafirin maakaana yaa mm-hmm. xam ne aay bi day gudd wala ndeysaan ne woon naa la juróom-ñaar dafa indi juróom-ñaari yi nga xam ne ñëwul si Faatiha muy fa ja sa sa za xa mm-hmm. za mm-hmm. nga xam ne ay xurufu zulmaani yu la yooyu xuruf yooyu nag lu mu mënut amul waaw moom nañuy defaree xaatimu Suleymaan waaw moom yooyu daal seex su ma doon lim la ma ci xam man waaw émission xajut ci émission bi tarkalla loolu nag fi mu ne ci dee wàllum ngóor moom amut mës koo am rek mu nga ni may garanté boobu. waaw sax sañ ma koo garanté si ismu jalaal bi. ismu jalaal bi xam naa ni digg wér. balay ndeysaan mais si bu yaasin bi. Mhm. billaahi wallaahi wataalaahi ak ku mu mën a doon ku ngóor a dal koo xam mus nga ko am boo ko jëlee wér macha ak koo mën a doon nag ak nu mu mënti mel ak ku mënti wax ak ku mhm. mën a doon waaw boo ñëwee mën naa koo faj jërëjëf waay waaw kon mu ngoog loolu moom moo affiché noonu suufu barre d'écran bi leer nañ ku ko ci contacté dina jëflante ak yow ba soxol sedd guy kooku mooy Serigne Moustapha Amar bu leen fàtte tam xarit bi at mu bees mi nga xam ne dugg nañ ko mille 1446 bi dina am lu mu ci yaatal baaxee leen ko borom xam-xam la aca ñëwal ma ci rab rab sëñ Cheikh ah. rab nag ak jinne mhm. day loo xam ni ñaar lañ. waaw daanaka benn la rek. Mhm. ndax soo nee bëy. di kéwél. bii daal ci àll bi. waaw kii ne ñi. Mhm. rab nag yi ci gën a bari mooy yi ne ci kër yi mooy yi ne ci duus yi rab yi ñuul yeeg yooyu xam nga rab benn bis yaatal naa ci lu nga xam ni. daanaka ku seetaan émission boobu noonu. amatul lu ma ci. yaatal lu bari. mooy émission xaw ma nan la tuddee ku ko xool ci YouTube bi daal di ko gis. doo tapé di nga ko gis rek. xool topp émission gis. rab nag Cheikh. li muy def dafa bari day tere sëy waaw tere am doom waaw di tas mariage waaw nga xam ne tey képp ku sëy ñaari yoon tas waaw wala képp ku la dig ba war laa ñëw takk dootoo ko gisee waaw rab li muy yàq dafa bari surtout rabu cosaan waaw bis bu ne ma ne suñ maam yi wala tooñ nañ bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ndax yooyu amul benn njëriñ dajale ay rabi cosaan yoo xam ne yow tuural leen soow tuur ay deret yu salte yoo xam ne yoo xam ne foo tollu tarab nee naa la seex hmm. dara mun la koo jëriñ xam nga lu mu lay lu muy def day jàpp soo ko neexalee mu bàyyi su yàqee nag dootul mën a defar hmm. mais suñ toogee yow wuy siwoo leen ñu jàpp la hmm. boo leen neexalee ñu bàyyi ñu demee ba yàq nag dootuñ mën a defar ah. ndax defar moom loolu moom kàttan googu amuñu mhm. yàq nag mën nañ ko ndax rab mën naa dugg ci biir nit mhm. di daw si dereetam ak def ay mbiru kii mhm. rab ak seytaane nag bokkul ah. ak nitu guddi it bokkul nitu guddi moom ngelaw lay def moom di yooyu dafa xaw a yaatu yooyu moom subhaanallaa bëgg ma si di waxtaan sax yàlla ñu yàlla musal si <laughs> ñoom waaw mais en tout cas daal rab képp kum jàpp dama si maye ayatul kursi yu cent onze xajut si a xasu xay rek nga koy boole. tey waaw tey si sangu di si nan. Uhuh. waaw yaay xool 9 jours mais àjjuma du si bokk. lu wér àjjuma moom du si bokk. du si bokk waaw 9 jours yi àjjuma da koy tëb. macha allah wa samaay wa taarix tamit 111 ak laxaat jàkkum boo xam da koy dugalante. waaw boo sangoo cent euh, euh, fukki fan ak benn. waaw mais àjjuma du si bokk. waaw suñ borom musal la ci mboolem loru rab. Mm-hmm. ak lori jinneeg lori leneen ñu dul ñoom macha allah waaw waaw suñ borom li ñu naan xijaabun mastura waaw nga xam ne da leen defar benn tata boo xam ne day dox day day doxalanteeg sa digganteeg ñoom mm-hmm. nga xam dootuñ mën am force waaw ba jege si la mm-hmm. loolu la suñ borom defal boo jëfandikoo sangat yi may wax suñ si macha allah su beeku bi mu ngi toj réew mi ndax lan njariñ la ci nekk dafa ñëw ci dafa bëri kaar macha allah waaw seex su beeku moom waaw daanaka doomu ramlu yi rek waaw dama siy def ay ibbeeku. waaw ibbeeku léegi damaa dem ba tey fi ne géej fi ma yóbbu comme li ma lay wax chaque jour rek. Mhm. dafa mel ni géej. waaw ndax tey géej nga ñëw naan tey fan nga war a commencé tànk te ndox di ndox te ndoxu géej di ndoxu géej rek. tey fi mu ne ibbeeku nag. at mi bu mhm. ma siy maye sincère. waaw mooy inna haza la risquna ma lahu min nafaat bi xamal tax ma maye ko. parce que année bi ñu ne 1446 bi waaw muy atu jullit waaw ginnaaw gàddaay gi waaw dafa jàpp inna haza la risquna ma lahu min nafadi mhm. nga xam ne mooy 1446 tey mhm. inna inna haza la risquna ma lahu min nafad bii nii waaw boo ko adatee 1446 say jàpp 1446 mhm. bii nii mooy année bii ñu ne fi ne dugg nañ ci 1446 léegi nag at bi atu naari la mooy atu safara. waaw moo tax at bi tàng jër lay def tey jinne yeeg xeetu sayaatin yi. nga xam suñu borom da leen a bind. waaw ci euh, xalaxal janna min maari jin min naar nga xam ne suñu borom da leen bind ci safara. waaw ren seen pouvoir. su doon benn la ci at mi day gën a yokk. Ah. ndax xat at bi atu naar yu la. Mm. moo tax ay jéeya. waaw ñoom ñu ngay dégg li ñu daan wax nag di tàndale. waaw naan ren <laughs> accident yeeg nangam nawet bi dana tàng ak dana lii. nga xam dañ daan toog di tandus rek di wax. Ah. ren nag loolu mën naa bari. yàlla nañ ci yàlla musal. walaay ndeysaan. Mhm. laa xadra laax wallaahu sama nga xam ne yàlla nañ yàlla musal ci xeet yooyu nii. Mhm. ndax at bi nii. six ah. soo xoolee. six bi mu maa lahu min nafaat. Ah. bas ganu mooy par neuf. six lay def. te six chiffre naar yu la. léegi ñu ngi mu ñëw fekkante ak atu tubaab bi huit. Mhm. huit atu xaw xawaa iyu la. léegi ngelaw ak safara ñoo duggante. moo tax fi mu ne kuy yee fitna wala ku jiyee joo gis rek. day gën di jug rek waaye di gën a wàcc. moo tax foo dégg coow rek. musiba nga fay dégg. nga xam nit ñi tey seen deret day gën a tàng. waaw ren tamit at bi nii. day mhm. tàng jër jër jër jër te daa mel tàmbali na sax. tàmbali na waaw mhm. bi tamit day bari. amoon na ko mosoon dégg mu koy annoncé ma ne ko mais ba ma xoolee. Mhm. pour man ci gars yi la rek. gis at bi des six te six chiffre naariw la. at bi kon atum naariw la. at bu tàng lay doon. waaw bu tàng jër sax. Ah. yàlla nañ suñ borom defal jàmm nag boo xoolee inna xaaza la risquna maa lahu day dox ci wàllum wërsëg wërsëg bu amul yemuwaay la. waaw léegi nag képp koo xam ne sangatu at mooy sangatu at mi. beneen sangat bu ñu la si wax. waaw bii rek dañ lay nax ndax moo jàpp at mi. mooy sangatu at mi mooy wërsëg bu amul yemuwaay. lay sa yarim lay doon. tarkal la lu ñu naan lay sa yarim. nga wërsëg bu amul yemuwaay lay doon. fi mu ne léegi nag lii nañ koy jëfandikoo. waaw xool ku mën a xaatim mu defal la ko xaatim mu 16 fois. ndax soo xoolee lii mille lay jàpp inna haadha la rizqunaa maa lahu min uh-huh. mille quatre quarante six léegi da koy xaatim seize fois uh-huh. ñu bindal la ko mille nag ko la koy defal moom da ko fay xaalis bëri ndax du liggéey bu ndaw da koy bind moom mi mille quatre cent quarante six ñu xaatimal la ko seize fois uh-huh. xaatim bi nag naari yu lay doon xaatimu naari yu ku xam xaatim murabbaabu naari yu lay doon naari yu mooy bu tàng mhm. naari yu mooy lu tàng safara xaatim murabbaabu naari yu mooy mhm. xaatimu seize kër nga koy xaatim seize fois mhm. boo ko xaatimee murabba seize fois boo xam duggin bi naari yu lay doon ama xaatim dafa am naari yu xawaa iyu turaabi yu ak maa iyu mais dugginu naari yu lay dugg ndax aay bii nii sax ci boppam moom naari la Mm-hmm. léegi naar yi ngay jël. Mm-hmm. Euh, nga koy xaatim seize fois boo ko xaatim nga bind aaya bi nii. waaw. 1446. Euh, mm-hmm. soo ko bindee 1446 mais da ngay jiital Fatiha ba pare. ba pare nga def xaatim bi seize fois. di ko sangoo. ab ci fajar gi. comme soo jullee fajar ba pare. ku koy def it bisu dimanche nga koy def. te ku koy def it premier dimanche at mi comme ça première dimanche weeru olof moom na la mois le mois lunaire xaw ma nan lañ koy waxee weeru olof bi première dimanche bi nga koy tàmbali te soo koy def seize jours nga koy mm-hmm, sangoo mm-hmm. yu consécutif comme ça tey dimanche yaakaar naa mooy première dimanche weeru olof waaw bii nii di ñëw mooy première dimanche weeru olof uh-huh. nga koy sangoo seize bis boobu nga koy tàmbali mm-hmm. seize jours nga koy sangoo mais seize jours yi jeexee yeboo yëkkatil soxla loxo nga wat ne dootuma jeexal dara ci kaw suuf tarkal la loolu moom maye naa ko. macha mooy sangatu at mi beneen sangat bu ñu la wax nag ak lu mu baax baax baax baax baax. baax baax hmm. mënta raw bi loolu leer na. Faatiya ngay jiital. ma hmm. bamtuwaat ko bind inna haazaa la rizqunaa maa lahu min nafaad 1446. macha allah soo paree. nga hmm. xaatim ko 16 fois. waaw su la neexee. pour mu gën a gaaw sax li ngay bëgg nga gën ko am hmm. soo paree dee ko wirdu 1446 bu hmm. hmm. fekkee mënoo ko nga wirdu ko 198 bu fekkee mënoo ko nga wirdu ko 66 barkallah loolu incha allahu rabbi loolu kay moom garanti naa ko moom macha allah képp ko def bu yeboo nga wat ne ñàkk moom tàggoo nga ak moom di nga am wërsëg bu dul dog lay sa yarim sax lañ ci wax macha allah waaw loolu moom joxe naaw ba pare tam ren xale yi mun mhm. ngeen di fàtte sëñ Cheikh ndax xeetu yooyu ma doon wax sayaatin jinn yi mhm. nga xam ni ren seen pouvoir waaw ndax seen année la fi mu ne nii mi ngi mel ni kuñ tën rek mhm. tekki la wallaay ndeysaan te soo xoolee ni jamono yàqoo ni ñoo tinkeeku waaw nga xam jamono dafa yàqu waaw te ñooñu lu bon la ñuy dund wallaay ndeysaan mooy yàlla yi nit ñi di mooy yàlla waaw seytaane yi ci la ñuy lekk seytaane moom loolooy dundam. waaw xadarallah yàlla ñu yàlla musal si moom. sax tudd guñ ko tudd. nga xam ne ren nag ñoom seen pouvoir. su doon benn la tey fi ne day multiplier cent. Mhm. ndax seen année lañ ne. te année bi dafa dugg leen. 31 décembre la la ñuy xool. waaw beneen année bi 2025 lan lay kii mais instant yi 2024 bi xawaa yu la. Mhm. duggalanteeg naar yu bu 1446. wala ndeysaan kon nag jéey. Mhm. ak tàng tàng yeeg wa xeetu kii nga xam ni seytaane yi nekk ndax accident yi si tali bi jinne yi ñoo koy def. waaw yàlla nañ ci yàlla musal. amiin waay amiin ren nag kon képp ku mënut kaaraange douze mille mm. basmala. waaw na ko ñëpp bindulu loolu moom joxe naa si ndigal. waaw douze mille basmala lenn dong la mënta faj muy dee. dama koy bind def ko xam. Mhm. heure boo sentiree ni yow nangam rek. ut ko nga dem sangoo ko ku mën a bind takkuy ko it na ko def. mais 12 mille moom ut ko di ko sangoo. amul lu ko gën ci sangat su dee si wàllum kaaraange ndax bismillaahi rahmaani rahiim. Mhm. dafa ëmb lépp. walaay ndeysaan waaw ku ko mën a sangoo sax ko amul jotu wérdu ko. Mhm. na ko koo liggéey 120 fois ku amul jotu ku ëpp ëpp jotu 120 nga def ko 787. mu jàpp fas na jaaba. xam nga fasta jaaba moom lañ naan zafasul rek mm, mm. zafasul mooy 787 mm. mais fasta jaaba mooy bu sëñ bi indi képp koo wér di 787 amul benn aajo soo xam kaaraange nga bëgg wala wér nga bëgg wala alal nga bëgg wala ibbeeku lépp si ngi ci biir dafon la jalbu la waaw loolu moom laa si mën a maye sëñ Cheikh si wàllum kaaraange jërëjëf mu ngoog ñu njëkkanteeg waxtu ñëwal ma ci wàllum papier wàllum papier su ma sabi la yasraxoo dama koo joxe woon am ñu bari ñu ma si woo sax sant ma ndax dañ koo bind lu 66. Mm, mm. pour ñu bëgg a tukki. waaw boole ñetti dunq picc. waaw yoo xam ne ak ñax wuy sax si kaw terrasse wala ñax buy sax si garab. loolu moom képp ko def sangoo ko juróom-ñaari fan. Ah. incha allah bu dee tukki nga bëgg wala papier nga bëgg dana la yomb. macha loolu moom joxewoon nañ ko te yaakaar naa ne dugaloon ngeen ko sax ba ñu baree baree bari gis nañ ko am na ma woo ñu bari ñu ma sant ne def nañ ko gis nañ si njariñ. waaw képp ko def it may naa la ko si xol bu sedd mm-hmm. ñax wu sax si kaw garab lay àndal ak wala ñax mu sax ci kaw teeraf uh-huh. ak ñetti dunq yaa xool dunq pison dunq nat dunq tan dunq boo am baax na nga nekk luy naaw rek boo ko defee da nga tukki incha allah jërëjëf aja ñëwal ma ci combat bi dox ci diggante Tapha Tine Balla Gaye laata ñuy dem ci yeneen point d'actualité mm-hmm. waaw bi nag uh-huh. doon naa xool mais xam nga làmb moom mm-hmm. dafa am ay sëriñ soo xam ni mm-hmm. surtout njabarkat yi sax laay wax ay ñu mën a làmb lañ làmb daanaka sëriñ bu mel ni man moom boos dee wax te amoo yenn xam-xam yi mhm. wala yoroo seet wér di wax lu dul dëgg ba doyal mhm. ndax làmb keroog daa am làmb yi fi jot a paase waaw ma xool ko toog di ko xool daal ndax comme li ma si seet nit ñi liñ ma siy interpellé dafa mhm. bari moo toog di ko xool di ko seetaan mais am na ñoo xam mbëri yoo xam ci biir géew bi waaw dañuy yàqi seen gàllaaj ah, yàqal ko seen dañ leen di nagam loo ah, ndax tey seet man mi te am na ñi ma ko xamee ni waaw la ko ñeneen xamee nga golo. waaw wala fas yi genn fas yi. seen genn fas waaw am na fas yu ne si fas yoo xam ne. ci jant bi di waaj a dugg. Ah. dara mënta tey ba du jàpp. Ah. parce que bu dee nagam loola mën na laa nagam loola bu dee tee say cër mën na la tee say cër bu dee takk xala sax mën na koo def doo nga xam doo da ah. koo ragalal lool trop sax waaw ah, ñu def ko ko waaw kan du ma ko dara nekk ko ci mais am na mbër moo xam moom ragalal naa ko ndax man faruma fenn ndax ñu takk ko yeew waaw waaw na ah. mbër moo xam ni dama koo ragalal lool te kenn ku muy bëril waaw loolu damaa gis ay yoon mu def ko ay nit aw ma temps wax ko nag parce que man yooyu intéressé wu ma. ay mm-hmm. làmb ak yooyu mais. Mm. gis naa ay yoon. waaw def ko ay nit. Ah. yoo ah, xam ne dara de Tafa moom kenn ku nekk dañoo débloqué. million jox la kenn ku nekk demal foo xam ñu ñu moo ah. euh, ji waaw. ku amoon xel di nga ñëw gis ma de. macha allah. waaw waaw ku si ku yàlla nar a dimbal dëgg. waaw xaw ñu gisante. macha allah loolu de dafa leer am na ñaari nag maa ngi wax ak ñoom mais. ku mos jubóol rek xam nga ni suñ borom dimbali na. tarkal la am nga liggéey nday dëggantaan. waaw jërëjëf sëñ lu baax moom danga nga ciy njëkkante. Mm. acca jërëjëf sëñ Moustapha Amar jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yooyu nga xam ne am na solo. acca dañuy dem ci tableau bi nag fas yéene am lu ñu leeral lu ci mel ni sëy bi dox ci diggante Zeyna Ndour ak aadama Bey dinañ ci waxtaan waaye am na lu mu gis ci Aline Sall dinañ ci yaatal. sëy bi nag gaa yi tàmbale nañu comme que sëy bu ngeen gis rek kenn ku nekk di fay wax affaire divorce sëy bi dina dem du dem loolu di leen ci maandu di leen di ñaanal seen sëy yàlla def ci tawfiix ba tax na nag euh, tey ma laaj sëñ Moustapha mu am lu ci càmbar seet ko sëñ bi laata ñu def leen am na lu ma gis ci tableau bi ci laa bëgg ñu ñëw yaatal ci. xëy lii xaw ma xaatim la xaw ma lan la moom laa bëgg nga leeral ñu wax ñu njëriñam. waaw sëñ Cheikh. waaw lii nag ma def ci tableau bi. Mhm. mooy xaatim la moo xam li lay naan la xam la ma xanaa nga xam nag dafa am juróom-ñaari doom. <laughs> max taxtiloon bi. <laughs> ci doomam yi la bokk. moom lañ naan max taxtiloon ñu koy liggéey xam nañ ko bu baax baaxa baax ñu xam la ma xanaa jaxatin. Mhm. lii nag sëñ comme léegi dañoo ne ci jamono joo xam ni. nit kaaraange. waaw surtout at bi sax xam ne atu naar yu la. Uh-huh. kaaraange moom lu si nit am rek doyut. lu si nit am rek sëñ Cheikh. waaw yokk ko yokk baax baax a baax a baax. Mhm. li boo xoolee xaatim bi dafa dugalante maa jiitum bihi as-sihru hmm. léegi soo jëlee soo ko indee ba si inna allaha sayabtuluhu hmm. nga xam ni boo ko jëlee ba si ba si ba si aay bi fi mu jeexee waaw soo jëlee maa jiitun bihi as-sihru hmm. léegi dafa jàpp neuf laa ilaha illallah waaw maanaam daa jàpp neuf la ilaha illallah maa jiitun bihi as-sihru léegi soo ko jëlee. dafa jàpp neuf laa ilaaha la uh-huh. léegi lii nag dafa dugalanteeg la ma xanaa jax maxtax tilun bii nii. Uh-huh. léegi nag boo ko xaatimee comme nii ma ko xaatimee. waaw jël ko bu baax mu leer. Mm-hmm. Mm-hmm. boo ko xaatimee comme nii ma ko xaatimee. waaw xaatim bi damul fenn. waaw sëriñ si mën nañ koo jël. Uh-huh. soo paree. da koy jël nga nga wérd. soo paree. Mm-hmm. soo soo soo soo soo ko bindee ba pare nii. waaw in a wérd inna allaha sayabtuluhu. ngay wérd cent huit fois. waaw. muy ak xàqu cent huit mooy jàpp xàqu waaw loolu am na ci solo noonu ngay def noonu mhm. muy cent huit nga koy wirdi mhm. inna laaxa sayabtuluhu waaw xaatim bi nag nii koy ah. bind xaatim bi la leer na nañ kay mii mii mu la ma xan bi ngay dugal xaatim mu rabba bi mhm. soo paree bi nii bi a moo koy tijji fii moo koy tëj fii soo paree inna laaxa sayabtuluhu moo koy mooy nekk si suuf mooy nekk fii léegi siifari ngay dugal nii si kaw mhm. boo ko dugalee la ma xana jaxadin bi soo pare da mhm. mhm. nga koy wér de cent soixante six max tax tilun nga wér ko mille quatre cent quatre vingt quatorze waaw maa jirtun bihi ngay yem af sixru maa maa jirtun bii bihi af sixru ngay yem soo pare inna laaxa sayabtiluhu ngay wér de cent huit soo wér de cent huit nga wér de la ma xana jaxadin cent soixante six wér de max tax tilun mille quatre cent quatre vingt quatorze wér de waaw yaakaar naa foofu nga yem ginnaaw ba nga defee sala astafirullah téeméer mm-hmm, mm-hmm. ak salaatu ala nabi tam téeméer pour mu gën a leer seex xaatim bi mi ngi nii damul fenn xaatim la ma xana jaxe din la tarkal la maa jitun bi sa maa bi sax si bi a sixru ngay wird mm-hmm. waaw inna allaaha sebtuluhu ngay wird 108 soo paree nga wird maxtax tilun 1494 la ma xana jaxe din 166 wird aaya bi 108 yaakaar naa leer nag képp koo def nag waaw rab. waaw jinne. Uh-huh. accident. waaw feebar. Uh-huh. liggéey. Uh-huh. blocage. waaw ak blocage bu mu mën a doon. mënatoo am dara. waaw say mbir yëpp yàqu na. dañ laa liggéey. wala kaaraange. waaw moom ci kaw suuf moom mën nga wat ni. kenn mënatu la yàqal. mais nag fàtte naa am na leen lu muy àndal léegi maxtax tiilun bi moom ngay def benn xaatim un deux trois quatre cinq six sept bu set bunt. waaw mooy comme xaatimu Souleymane rek. waaw ngay bind miim xaa bi taa tànk bi. boole ko ba mu mat ba ba si làmb bii nii. jërëjëf waay ngay euh, juróom-ñaar yoon. nga koy bind mu ngoog xaatim weesar lay doon. Mm. tax tax tilun. xam naa ko soxla it soo kiiwee dinaa la ko def. jërëjëf soo incha allah day ndax du xaj ci tableau bi daal dafa mm. bari. Uh-huh. mais su paree soo ko wirdee rek maa jiitu bii bii sixru. Mm. bi <laughs> wirdi inna laaha sayabtiluhu. 108 uh-huh. tarkal la ak lii nii la ma xana jaxidin 166 uh-huh. maxtaxtilu 1494 ak euh, astafirullah moom ngay jiite ak salaatu ala bi baax da bi nga defee yooyu yëpp soo xoolee mhm. maa jiitun biir sixru bii nii day tekk suñ borom dina annulé mboolem magi bu ngeen def waaw mooy kon kullu njabarkat njabar goo mënti def rek suñ borom dina ko annulé macha allah mooy tekki maa jiitun biir sixru mhm. inna allaha sayabtiluhu mhm. nga xam ne léegi boo jëlee maha jiitun biir sixru mooy jàpp neuf laa ilaha illallah kon da ngay def cent soixante six fois neuf moo xoolee Euh, la ma xana jaxadin bi kon 166 nga koy wir. waaw jàpp laa ilaha illallah. yaa ngi gis. nga wird 1494 bii moo jàpp maxtax tiiloon bii ngay wird 1494 1494. maa jëtoon bii ak fixru nga wird ko 108. 108 mooy ak xàqu mooy dëgg. xarkal hmm. la xàqu. Hmm. léegi soo xoolee maa jëtoon bii fixru mooy jàpp. neuf laa ilaha illallah uh-huh. maanaam suñ borom day xam la ni mbooleem njabar uh-huh. damay annuler magie yi ngeen def yëpp ci aaya bi nii loolu la si wax macha allah ne mbooleem njabar ngeen def rek uh-huh. dinaa ko annuler inna laaxa sayabtiluhu jërëjëf waay kon leer na sëñ Cheikh ah jërëjëf sëñ Moustapha ñi ma bëgg nga seetal ma bokk na ci Zeyna Ndour ak aadama di boroom kër gi ñu koy woowee Adama béy soo fa jógee nga xoolal ma kii di Aline Sall di rakku ancien président bi fi jógee mu di Macky Sall bismillah seetal ma ñooñ tey seet bi nga ne Zeyna ak Adama Bey. waaw yaakaar naa wàcce woon naa ko ba pare. tarkat la léegi kon bind bi moo si des. Mhm. léegi boo xoolee seetu Zeyna bi ah. waaw bisimilah si la ñu dem nii. Mhm. dafa def taw nasra boobu bu tëju. Mhm. moom la génne. def juróom-ñetteelu rékise kon ndam lim am. lii nag ndam la ak ay garab yu mu jëfandikoo woon moom. mu ne baax na am na ñaan Zeyna Ndour ah. macha allah def ñaareelu ah. réquisé mooy tekki garab yu mu amoon. ak rab yi cosaan yoo xam ne am na ko. Mhm. ndax lii rab la mais rab bu koy protéger la. bu mhm. def nasra boobu bu tëju. ndax réquisé bii nii. tekki rab day tekki gàllaaj day mhm. tekki ndam. mi ndam la am na ñaan moo mu def juróom-ñetteelu. Euh, réquisé. waaw mu ne kon ku am gàllaaj la ku am ñaan dégg nga. def nasra. bopp bu teju boo xam ne wéeru si daamar kon ala kulli àll kon fi mu ne nii moom soo ko laajoon danaan la sama bopp tëju na ñoo lu tej boppam boroom këram gi moo taxaw ni ci juróom-ñetti point def fukkeelu tarik mariage boo xam ni nekk na ci ni am na kon dégg na buum waaw moo tax ramlu yi seex xam nga lu ci garaaw lii xamul Zeyna xamuma man mii di ko def te lépp loo ciy def rek day génne exact kii lu muy dund leer kay fukkeelu tarik bi bu mu sëy la boo xam ëllëg kul yàlla am na ko dégg nga léegi soo xoolee ci biir fukkeelu tarik bi dane mariage bi ndam la ci moom baax na luy am la defaat tarik mais xoolee soo boolee ñaari tarik yi ci kaw fii nii xam nga ñuy seet ci diggante nit ak nit baax na am baaxul. fii lañ koy xoolee dañuy jël lim caatloo ak lim euh, juróom-ñaari point bi. Mhm. mu indi sëgal. léegi nag maye naa si léegi xoolal soo xoolee si biir ñaari réquisits yi. waaw sëgal la. mooy mariage am bi dina si am lëndëm lëndëmu xol. ak lëndëm lëndëmu yaram. cëy mi ngi nii ala kulli al seet bi génne na ko ba pare. Mhm. mu ne bopp bi tëju na. li siy tëju nag man xam naa ko mais du ko wax mu def juróomeelu góor waakaf boroom këram leex mu ne gëbërkat kon am na ko léegi mariage bi taxaw na mm-hmm. ba pare mu def juróom-ñaareelu tarik mm-hmm. li nag ab yoon bu muy dem la mm-hmm. dégg nga yoon rekki ndam lay doon léegi soo xoolee ci biir seet bi dafa def nasra boobu bu tëju li mu génnee rikki kiis ak rikki ak nasra am na tamit ay xeexu mystique yooyu moom. <laughs> amul solo. mu def sëriñ ba koy njabar a ngi nii taxaw si fukki point ak benn sëriñ bu xamul dara la. sëriñ bu man kataba mooy gars yi taqale rek di bind. <laughs> Uh-huh. nga xam duñ ci am benn preuve. Uh-huh. moo tax li muy def fi mu ne dara jàpp si. mu def juróom-ñett fukk ak benn chiffre lii nag moom ay yàquleem la. yoo uh-huh. xam ne wan na ko ginnaaw. mais nag dana am coow. Hmm. ndax dana coow lii nii. Hmm. fexey sëriñ lay doon bu mu amee bum mu ko bett. day nekk coow loo xam ni fi mu comme fi mu ne mi ngi si ay dafa nekk ci ay mariage waaw fi mu ne affaire yi ak lu siiw léegi yooyu dina tekki coowul comme euh, cérémonie mais coow li ni coow lu muy am la si biiram mhm. coowul cérémonie nii la mi ngi nii duggante si biir mais mhm. coow li coowul biiram la mu ne pexey sëriñ da see bokk mhm. siifar ay yàqu-yàqu ndax soo xoolee si biir set bi dafa def ab yàll xaalis ah. bu bari boo xam ni am na si mariage bi mi ngi nii ah. li foo gisee moom lay wax Idriss léegi man seet bu may seet sëriñ ci bari <laughs> woo nañ ma ne ma. <laughs> yow li ngay joxe léegi ci li ngay gën a jàngee ramlu bi moo tax dama ciy profité jàngale seetalu ma pour naa ndax ñooñu intéressé wuñ ma. mais damay seet pour jàngale. waaw gis soo xoolee léegi xaalis bi. mu ne daa wéeru si rekise kon lu am la. moom seet bi seet bi génnee na ni. Mhm. xaalis am na si. macha allah kon baalu ndaw tali la mu defaat. macha allah. ñaan moom Zeyna am na ko trop gis nga. Mhm. mu génnewaat ko léegi nag soo xoolee si kaw. Mhm. dafa def rekise ndam lay doon. xamali ma la defaat nasra boobu bu tëju fii fii mu génnee gëbër këtt kon takk nañ ko ba pare mooy xaw ma ah. nan lañ koy wooye si yenn seet mais su dee sama seet man gëbër kiis sañ ko ah. mu ne rekki see ndam mhm. lépp lu ko sëñ bi defal na am na ñaan ba pare mucc na mu ne caatum tarik lii may wax nii yëpp lu ñu xeeb la dane billaahi luy am la ba si caw lii dina ko am mën naa ah. siw mën naa bañ a siw dégg nga mhm. soo xoolee digganteem ak jëkkëram laaj na sarax ndax caatum sëgal la def laaj na sarax waaw lii nii mhm. lëndëm lëndëmu xol la ak lëndëm lëndëmu yaram ak ay ndog ndog ak ay yaakaar yi tas junj la wala loolu sarax bi buñ ma si interpellé ma wax leen ko buñ ma si waxut ñu dem xool ñi leen di ñaanal ñu wax leen ko incha allah te ñoom yaakaar naa xam nañ ko ah. waaw def seen diggante ñoom ñaar kon la waaw dégg nga kon seetu Zeynab mi ngi noonu léegi soo ñëwee si Alioune Sall dafa def taw leyaali waa këf lii foo ko gisee seex moom lay wax ayoo ba mhm. ci seetu yeneen ramli ab xeex lay tekki Mm-hmm. mais lii ab sëriñu ñaankat bu am bopp. lay teg mooy layaali waa këf. mu def ñaareelu aadama kon Alioune sàll góor la. waaw dégg nga aadama la moo tax mu def ñetteelu siifar ay yàqu-yàqu yoo xam dab na ko. Mm-hmm. yàqu-yàqu yi nag dafa wéeru ci gàllaaj moo ko waral. Mm-hmm. mu defaat. Uh-huh. sëriñ moo ko xeex mooy sëriñ bi kiiwaat. defaat gëbër mu ne am na ba noppi ci biir seet bi laay sedd àggaguma sax si yeneen yi mu ne kon sëriñ dugg na si ay mbiram yàqal ko gàllaaj ko xam Mm-hmm. mu def samra jigéen bokk na si ñu koy xeex jigéen ju mag mm-hmm. waaw mu def sëgal jigéen jooju tax fi mu ne yaramam neexut man xam naa kan la mais du ma ko wax dégg nga waaye fukkeelu góor waa këf ndam boo xam ni moom ci tawféex daal lay dund macha allah uh-huh. waaye nag ndam li uh-huh. daa wàccaat ba fii juróom-ñeenti point kon ndamam yàqu na uh-huh. waroon tey comme fi mu ne fekkoon yor na bërëbu liggéeykaay ñàkk na ko fekkoon amoon na privilège wala ay. Euh, yu mu doon am ñàkk na ko jeex na ah. ndax ndamam mi ngi nii gent na ah. doon na nekkoon na ci kaw di dund nga instant bi ñu naan ko góor waa këf su yàggoon fii kon ba tey day yor nguur day neex la mais fii mu nekk nii yàqule lay teg léegi ñu ne lu ko yàqal ñu ne fukkeelu amar yi jigéen jii di ko xeex nga xam liggéey bi liggéeyu ñuul la rékkise ci kaw gàllaaj mais Alioune Sall am na ñaan mais amul doole uh-huh. ñu ne jigéen ak góor ndax waxtaan wi jigéen xola góor ak jigéen ñoo koy waxtaane uh-huh. góor ak jigéen. Mm-hmm. ñoo nekk ci kawam di ko waxtaanee. ba sëgal ko yàqal ko ba góoru kilifa gu mu àndaloon sax di mbokkam. Mm-hmm. am ngent la wan na ko ginnaaw. loolu leer na mu ne peut-être teg na ci bëtam ba pare gis na ko moom Alioune Sall góor gii di ko xeex suul nañ ko dara fas nañ ko mu def gàllaaj rectifié. Ah, ah. mu ne kon su doon gàll ay ay comme privilège yu mu amoon. waaw yàqu na fi mu ne def góor moo nekk ci kawam di ko waxtaan ak jigéen. Hmm. tey soo xoolee gisoo si biir seet bi aadamaam mi ngi nii. Adama mu ngi nii ñu xam ram lu xam nañ ko benn ñaar ñaar ñaar léegi mu génn waat fii benn ñaar ñaar benn benn mu ne kon góor ak jigéen ñi ngi waxtaan pour yàqal ko moom. waaw dégg nga. leer ci daamar. pour mm. yàqal ko daamar jëm yoroon wala nguur gëm amoon mu ne gëbërkat kaw daamar kon moom Alioune Sall même bu deful attention sax dina am coowul administration. Ah. wala dara kër wala place bu mu yoroon wala ay terrain. waaw ñu nangu ko si moom. Ah. wala mu nekk ci xëccoo daal mu génn ci ay. loxoom dem ci loxoy keneen mhm. waaw mu génn ci ay loxoom dem ci loxoy keneen. Ah. def lii góoru kilifa gu ko woon ginnaaw la. mu ne pët ak teñ teg na ci bëtam lii luñ ko suul la góor moo ci waxtaan ak jigéen ba def ko réquisé si ay gàllaaj lañ ko defee waaye nag caatum daamar bu taxawee ci boppam. dina amaat dara. jërëjëf force loolu kenn mun ci dara ndax caatum daamar bi fu mu génnee rek ah, victoire leer na mais ci kaw mu ah, sangu acca kon ñu bala nga tàggatoo jërëjëf waaw kon Cheikh ah, euh, ginnaaw bañ sant yàlla di julli ci bi di wax wa axiru daxwaana inna alhamdulilahi rabbil alamina jërëjëf jërëjëf